non eh, mais vitrine yi dafay am parce que musique euh, euh, euh, plan de carrière dafa am. Mm-hmm. El Jazz def nañ benn morceau bu neex. man El Hadj mm-hmm. Taye composé naa benn morceau jox ko ne ko dinañ ko diyo mm-hmm. parce sama jarbaat la sama rakk la. sama tànk la foofu bu ma gisee ak moom da nga naan c'est pas possible. El Jazz aussi nekk sama rakk. maintenant alhamdulilah dañu nekk ay artistes yoo xamante ni dañoo. solidaire dañoo solidaire c'est vrai dañoo mën sot nag. waaye dañoo mën sot. kii day dem kër kii añee foofu kii dem kër kii parce vraiment daal loolu harmonie bu doy waar la. Mhm. mi ma ñëw ci musique bi ba tey. d'accord bi euh, Birahim dama bëggoon nga wax ma actuellement nan ko gisee musique sénégalaise. waaw ni ma ko gisee mooy ku ne yaa ngi def lu la neex rek. Mm. lu la sant loo sentir nga def. ah bon nga ndax man moom ma musique bi. sama papa moomu ko sama yaay moom ko. Mhm. dama ko fi fekk keneen fekk ko fi ku nekk li nga sentir ngay def su baaxee. yow la concerné bu baaxul yow la ko yow la concerné. la mais comparaison bi musique sénégalaise bu njëkk ba ak léegi. non ute na mhm. sérieusement ute na. parce que mhm. musique bi boo xoolee man côté 2014 bi may génne mhm. album avant 2014 nit yi dañuy woy lu lu lu lu ay qualité lu doy waar. loo xamante ni melomaan dañuy xam ni lii fii ak vingt ans boo koy déglu lay neex. day mel ni tey la génn. te aussi man li ma ci euh, lancer benn appel que ñu bañ ko foowee ñu bañ ko yàq. ñu mm-hmm. continuer ci lancer boobu. parce que c'est mm-hmm. très important quoi musique qualité. Mm-hmm. baax na lool lool lool lool mais ku nekk boo sentir def art mun nga ko defee ni la neexee am na comédie musicale yi fi am. nit dañ koy def di ko def ci mun na nekk loo xamante ni kenn du ko consommer lu yàgg mais nit yaa ngi ciy bégee quoi. mais léegi nii da nga wax point bu am solo. mais mhm. mooy danga nga ne musique sénégalaise léegi ku nekk mu ngi def lu ko neex. Mhm. Mhm. foofu genre bu ñu defee benn rétrospection de de fait. mën mën naa jàpp ne ku nekk mu ngi def lu ko neex. donc musique bi da nga bëgg wax ne dafa am laisser aller. y a trop de laisser aller mu nekk léegi lu la neex ngay def. lu la neex ngay génn. explique mais parce que parce que kenn moomu ko. xam nga bu la neexee nga teg si euh, studio sa kër. nit di way bëgg def maquette nga defal ko maquette. mu fay la mu dem parce que kenn kenn newul boo yorulee cent million wala boo neexul baat doo way mm-hmm. moo tax ma ne ku nekk yaa ngi def lu la neex ak nu mu la neexee. Mm-hmm. te man mënuma ci dara keneen mënu ci dara. mais musique am na yoon. bi ngeen di def nii am yoon. da seen plateau bi di wax mm-hmm. di n'importe euh, di di di seetaan. de ce que man ku mel ni tey man sama man sama euh, de ma part personnelle. man je préfère ma def loo xamante ni c'est Euh, c'est euh, professionnel tu vois mm-hmm. nit yi di ko gis sama côté comportement mm-hmm. déjà euh, ni may composé ak nit yi di xool suñu papa yi fi nekkoon dafa am fu ñu mm-hmm. yóbboon musique bi dafa sori woon trop aussi dañ demoon ba nekk ay ambassadeur mooy nit yi dañ leen dañ leen jox cër respect parce que woykat mais woykat da ngay dem benn instant boo xam ne dañuy président bi day woo woykat bi ne ko sa xaaral ma yónni la ci dëkk bi nga dem représenter fa parce euh, ndax li nga way euh, sa baat quoi. Mm-hmm. nit yi mën la déglu. Mm-hmm. mais man dama bëgg bëgg bokk ci ñooñu moo tax ma teey daal. Mm-hmm. pour ëllëg tey musique bi. bokk ci ñi koy yóbbu ci. Euh, Papa Youssou Ndour Papa Thione Seck Omar Pène Ismaël dañ leen ba boo leen ñooñu boo leen gisee. man dem naa temps yii kër Baaba Maal. ñu reerandoo mais da ngay gis nit nit bu yaru. nit bu humble. nit bu humble surtout. c'est tellement grave quoi. mais est-ce que gisoo ni euh, way léegi ni ñuy wayee di def lu leen neex est-ce que gisoo ni ñooñu. ils sont plus suivis que ñi nga xam ne dañuy jaar ci yoon. waaw léegi si moo tax ma la affaire bi kenn moomu ko. <laughs> Ah, parce que léegi Sénégal léegi Sénégal parce que nit ah. ah. ñoom am nañ droit. Mm-hmm. am nañ droit Pawlish mbay woy benn affaire ñu mu neex leen. Mm-hmm. léegi jël Pawlish di ko di ko di ko Pawlish non parce que man Pawlish man Pawlish man man man dama koy béggee man <laughs> man pour te dire que pour te dire vrai man su ma toogee sama sama sama nekk. Uh-huh. damay damay xool ay vidéo am di reetaan. mais Pawlish man Pawlish yow yow yow mi nga xam ne yaa ngi ci musique. Hmm? dama bëgg nga wax ma ndax Pawlish moom comme comédien la. wala man musicien lu ma ci xam. <laughs> mais musicien nga. man man boo gisee sax boo gisee nit bu mooy war nga xam ndax kii musicien la ou pas non pas musicien du musicien mais mais artiste la parce que Pawlish dafa mën a fecc. mais est-ce qu'il a la voix. <laughs> non pas voix. mais man dama bëgg a xam. xam ngeen àdduna yéen fa ngeen fa ngeen xam ne fa ngeen xam ne àdduna. Uh-huh. Mm-hmm. di am na ñoo xamante ni dañu wér. Mm-hmm. di am na ñu wéroo. Mm-hmm. dama lay wax dama lay jox exemple ci àdduna. waaw am na wér am na ñu rafet. Mm-hmm. am na ñu ñaaw. Mm-hmm. am na ñu mën a fecc am na ñu mënul fecc. Mm-hmm. am na ñu mën a way am na ñu mënul way mais ku ci nekk ak sa rôle ci àdduna am ñoo xam dañ yàlla da leen wàccee fii ñuy bégal nit ñi nit di ree. <laughs> te loolu ba amul woon ci àdduna baaxul. dañuy dindi stress. ku lay dindi sa stress dafa am ne dafa baax. kooku mën na def dara nit yi jël ko di ko def challenge yow nga way lu neex kenn du la challenge. nga naan mais nii nii pourquoi nga bëgg yow yaay kan bañ la war a ñu war la challenge par force ñu ne duñu Paulus euh, Paulus Mbaye kenn du ko challenge wala tey buuba Ndamba wala je sais mm-hmm. nit yi ñoom ñoom moom seen bopp foog ñu bàyyi nit yi ak seen liberté. Mm-hmm. c'est vrai d'accord ngeen. d'accord loolu moom am na. c'est vrai mm-hmm. mais da wax léegi nii point bu point bu am solo. Mm-hmm. mooy que xam nga mën naa ne toog nga cinq ans nee nga cinq ans yow da nga mm-hmm. toog xalaat xam fi ngay tegaat sa tànk te da nga bëgg bokk ci nga xam ne. Euh, dañ leen di woo téléphone ne demal ma dëkk bii dama ko présenter Sénégal. mais gis nañ ne Pape Birahim moom ñëpp ci yenn way lañ ko xamee. benn lover la. mbëggee lay way. trahison lay way mhm. déception lay way genre affaire yu mhm. sa musique yëpp musique sentimentale la moom mhm. ngay way ñu gis ne bi nga duggee toog cinq ans c'est revenu euh, ci ci scène bi nga indi beneen version way indi beneen facette boo xam ne ci xamuñu ko woon mooy nit buy way ci thème supposons jamono da nga ñëw way société jamono li mu ëmb léegi comment ça se fait nga def transition boobu jóge si ay musique douce ñëw ci way boo xam ne thématique la non parce que alhamdulilah. Mhm. ma ne naa yàlla suñu borom may na ma. Mhm. tey fu ñu toog nii. Mhm. mënoon nga ma tegal instrumental walla nga euh, woo ma ci dara. mun naa bind tey trois morceaux yoo xamante ni ci journée bi yu différent mais nit ki buy ñëw dafa am loo waree capter doomu aadama yi. c'est tey boo xoolee ki ma doon seet message bi dafa jàll. mooy takk nga sa sër. ñépp naan seen doom yi gis nga kii li mu way mm-hmm. te pourtant boo xoolee du mbëggeel boo xam ne sama saaja mm-hmm. sama mm-hmm. reenu xol da ci non du loolu mooy que ni li may liggéey bés bu ne euh, euh, lépp yaay borom yow yaa ngi way euh, ndaw si di ko wane ni man góor bu am jom laa ba pare di ko takkaloo sëram ma jékki-jékki ñëw ci fu ma jëm ku nekk mos nañ la trahir ngay góor wala ngay jigéen mhm. ba pare ne kan moo mën a waat ni sa gel nga yem tey mënuma waat ni sama gel ci man la yem mhm. sa far mënoo waat ni ci yow ci yow ci yow la yem wóoru la mën mhm. nga jékki-jékki mu ñëw ci yow dix heures la kenn xamul quoi donc ah, ko jàng maîtriser nga ko maîtriser ko moo tax ma teey dal te li muy wax ni dama bëgg a yóbbu musique musique man yóbbu naa ko pare dem na ba pare kenn mënu ci dara ah, non non loolu dem non dem na ba pare boo déggee dem na mooy que ni. Mhm. damay préparer sama bopp ci sigil sénégalais yi. Mhm. xam nga parfois di nga am dara di ko jéem a jaayante ak sénégalais yi non. Mhm. parce que musique séné euh, euh, sénégalaise du ñun ñoo war a rayante xam nga la war a def rayante suñu musique mu dem rayante ak beneen musique. dëgg la. dëgg mais est-ce gisoon ni booloo boobu noonu amul fii Sénégal. mais amul bu ñu doon def ay featuring mais dafay jàll. dafay neex. kii yor baatam kii yor baatam kii am na ay fansam kii am na ay fansam. mu neex quoi mun naa si ngeen mën a euh, jël musique bi yóbbu ko feneen mais fu ko nekku te gis euh, naa ne sax bu ñu artistes yu mag yi bu ñu daan booloo di def ay featuring seen biir mhm. ci la ñuy gën a mën a musique bi ci musique sénégalaise ci lay gën a mën a dox parce que bu ñu xoolee nigériens yi muy américains yi muy ñëpp ñu ñëpp dañuy booloo def benn way ku nekk public am da lay déglu ku nekk public am da lay jege. Mhm. tu vois léegi pourquoi pas Pape Birahim yow supposons yaa fi nekk yow mhm. yaay yow yaay représenté musiciens yi pourquoi pas nga jël initiative woo artiste bi ak bi mm-hmm. ak bi ne leen kaari ñu def featuring way mm-hmm. Sénégal mm-hmm. wala way ci loo xam ne dina mën a jëmale suñu musique kanam ak maa koy def loolu euh, li nekk sama mind yëpp dafa dafa bëri dafa bëri parce que euh, boo seetloo jot naa def ay featuring ak ay nit xam nga mu def bomba xam nga euh, donc loolu li ma ci am ci ay thèmes lakk jeexulu ko moo tax ma ne la premier album da koy def nga jàpp nit yi. Mhm. ñu xam ni kat kii vraiment artiste la. Mhm. parce que li ñu naan euh, nekk ci xoolu sénégal yi dëkk seen biir xol. moo ci gën mooy que ni dëkk na ci xolu nit yi ba pare. Mhm. mënatul dañ mais le problème en est que euh, deuxième album bi man double album laay pare génnee double. album national ak international. donc du liggéeyu caaxaan. dafa bari ay aussi yu yu léger dafa dama bëgg mu léger quoi. da nga bëgg da nga bëgg indi benn affaire non foog mu léger warul metti beneen feneen parce que mhm. dëkk bi moo metteetul gis nga affaire bi. Mhm. musique bi moo moo compliqué ko mhm. quoi. da ngay woy ba tas am ku ñëw wax benn moo bu ndaw. yaa yàlla merci beaucoup jeex na. léegi compliqué wu. cas bi dat xoolal mais nga ñëw génnee cas indi benn son bu tudd cas. yombul cas du la dab da koy judduwaale. yuuxul ma ci cas ma xool damay peese rek nag yuuxul <laughs> cas du la daab dañ koy judduwaale xam li la jàpp foo génn fa laale gis nga na ma doon woy na ma la doon sóolalee ma doon seet ak ni may woy nii est-ce que c'est la du da yaa ngi naan lépp lu ma am mm-hmm. mm-hmm. la daab dañ ne jàkk ñuy bégee ba mer maîtriser kontaan continuer nee naa la dooley jënd waaye xeloy solu ak ma bëgga solu romb ñuy xolu def say couleur mën day osé cas ba ci am yow bul solo doole day am luxe te du rafet secret bi mooy simplicité dara fay loolu waaw laaw la cat man li ma bëggoon ñëw mooy damay ñëw léegi ci li mu doon wax euh, ba tey non ñëw ma si cas bi si li nga doon wax laay ñëw mm-hmm. euh, est-ce que gisoon ni il est temps que musiciens xool seen entourage mm-hmm. parce que boo xoolee problème yi am entre artistes yi mm-hmm. mën nañ ne entourage bee koy andi tey jii Pape mën na woo benn artiste ne ko dama bëggoon ñu def duo génn benn woy mais da ngay gis entourage ñoo ko naan kii yaa ko dàq woy bu ci dugg bañ a loolu day bootu def lay est-ce que gisoon ni que musiciens yi xool seen entourage waaw moo tax ma ne tant que ñu ngi am esprit yooyu ay kii day mm-hmm. bootu. kii day bëgg nga ko lii loolu ça n'existe pas. Mm-hmm. bootu moo boobu ci musicien laa ko jëlee man. waaw la. ma waxu bootu. mais terme boobu nit yi yàgg nañ ko utiliser musiciens yi xam nañ ni terme terme bootu mooy lan. Mm-hmm. mais pour man àdduna lépp loo gis ci àdduna dimbalante la. dëgg la tey mun naa mun naa euh, tey def ak featuring artiste boo xamante ni peut-être que nit yi mun nañ ko xam à travers l'internet. am na mm. ñoo xamante ni da ngay nekk yow waykat bu mag mais ñoom ñëw la ëpp visibilité ci côté internet. c'est clair.